kay borom kër ga jéppi na nga ne maa ngi askanekoo ci geneen kër bu mën a doon jël say audio tasaare ko koo koy wax nga ne Seydil Hadji Malick boo yemoo dagg sa kurus yàqu la ñoom ñaar xalifaay Seexu Tijaan lañ koo ci laal ñàkkee ko xorma donte nekkut sa silsila yàqu la te wëliyu yàlla yépp ñoo bokk réseau bu la ca kenn jëppee ñëpp lay jëppee xam ñu ci bari xir mo leen yàq man di way sama sëriñ danaa wane dama jeex ci moom dama dee ci moom moom rek laa gis ku ñu waxatee nga saaga ko sëriñ boobu bu matee jéppi nga la billaahi doo jariñ ci xalifa boo ko dalee yaay Seexu Tijaan moom la maam xalifa de wa kullu ladi qad kaana li cheikhi waajiban gada waajiban min baadihi lil xalifati xalifa du caaxaan ndax li xew léegi kenn xamul lan la li xew léegi kenn xamul lan la leen léeg nga dégg ñu ñàkk teggi di askani ci kër bu leen neex di sànni ñaari ñaari kàddu yu ñaaw ci kilifa yi ñoom ñaar dañu leen xam ñëpp mosuñu leen a teqale dañaan leen def sax tas ni yaay lisi tas ni yaay lisi mooy ñaar ñu mënta teqali ko sëriñ Mbàkke bu sami leen xam tas ni yaay lisi na leen def waa salmata fii diinana al islaami min xalci xarnay hëmatil allaami xarnay la wax de dem ne aalimayni naasikayni muslikayni li xadratil allaami juróomi tas niyaay gis na leen seen mbàkki bu sa jox ne ñoom ñaar ñaari jëmm la ñu mënta teqali ko nit ñee coow te la wax duñ ca xam dara ñoom ñaar kenn ku ne am nga sa cërëb bopp boo daataar la wax te jaarul ci sa morom maam Alaaji Abdoulaye Niass lim am ci Seexu Tijaan yàlla xam fan ko jaarale ba mu egg ci ci Seydil Hadji ci Seexu Tijaan ci ay i may yàlla xam fan ko jaarale ba mu egg moom mais jaarul ci Alaaji Abdoulaye Niass amul kenn ku sa lijaasa jaar ci sa lijaasa dañuy war a delluwaat ci téere yi su ma bëgg kon par parloo bi xew man la diw a njëkk am lijaasa ci ñoom ane sàngam la diw door a am lijaasa ane sàngam la keneen door a am lijaasa waaye léegi wax dafa jafe ndax lii yàq wax dafa bëri ñii soppi wax dafa bëri ñii dagg wax dafa bëri ak jël kilifa yi def leen ay entreprise ba di ci dund dafa bëri moo yàq lu bëri waye limay may moy suñ gaayu bax yi li ñuy bax bax seen bax te duñu jëriñ tous fek jëmu ñoo bax ci seen bax waye su fekkoon wala ko am ko bax dem aljana ko ñu neexee bàyyi julli xam nañ ñu baax wax dëgg yàlla cheikh Umar Fuuti yu baax na te ñoo ko moom Xaadimu Rasuul Seex Ahmad Bamba bax na ñoo ko moom Alxaaji Abdoulaye Wes baax na ñoo ko moom Alxaaji Malick baax na ñoo ko moom seeni njaboot baax na ñoo leen moom mais yàlla nee na kenn du ñëw al alaxira ma lay laaj li nga ñi nga ñi baax le mais xam nga li ma lay laaj li baax le sama yoon moo tax mu ne tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat lu jotegu walakum maa kasabtum maa kasabtum la wax de du ma laaj kenn ñi ngeen baax le waaye dama lay laaj li ngeen baax le su fekkoon ne ko am ko baax sole yahudi sole nag isxaqa mooy seen maam mu jeex waaye ñun dañ fiy nekk tiitaroo ñiñ baax le te tiitaroowul liñ baax le da ngay laaj yi ñuy laaj ci biir bàmmeel yépp yonent bi jàngal ñu ko kuy sa sëriñ bokkul ci bokkul ci bien rek sa biir bàmmeel ñu wax ne kuy sa sëriñ bokkul ci wallaahi yonent bi ko jàngal Baay Ibrahima daan ko tëkkee luy sa kuy sa fuy sa luy sa kuy sa fuy sa sa sëriñ bokkul ci kuy sa dañ la ko ñaari yoon kuy sa borom kuy sa yoon luy sa ñetti yoon luy sa téere ak maanaam luy sa diine fuy sa benn yoon mooy fuy sa xibla ñeenti juróom yi dëgg kuy sa sëriñ bokkul ci yow na nga nekk fii xëccoo di xeex ci lu ñu la laaj ba mu yàqala liñ lay laaj foofu ko teg yàlla yàlla defal ñu taw fii yàlla yàlla defal ñu yàlla xëy ci boppam def ñu dëgg dëgg jullit yàlla yàlla nañ làq gërmande yàlla yàlla nañ làq gërmande yàlla jotaay bi ci barkeem mag mu baax ñu ko tuddee nekkoon jàngkatu alquran ak jàngale ko yàlla ci yàlla dëgg xool ñu bëtab yërmande xool ñu xool koo xam ne dootuñu jéppeti mukk yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def bàyyeekoo yàlla na set nekk ci bàkkaar buñ fi bàyyeekoo yàlla na wér am jàmm buñ fi